waa tey dañu daje woon fii nii euh, pour waxtaan euh, pour euh, jàllale pour partager benn liggéey boo xam ne dañ ko defoon dañ ko def xaatim ko ci benn document pour que nit ñi xam ci lu jëm ci wàllu ODD 16 fan lañ ci toll lan la ñu njort lan lañ gisagum te lan la ñu yéene nga xalaat ne war nañ ko mën a def jamono jii pour que yëf yi gën a mën a ñoŋ. donc dañu def liggéey boobu noonu moo tax ñu invité leen yéen taskatu xibaar yi invité suñu yeneen naataangoo yoo xam ne ñu ngi liggéey tam ci même thématique bi même même ODD bi pour ñu mën a ñëw partager xool ñun fan lan lañ jël ci ODD parce que ODD 16 dafa yaatu dafa bëri cible bari indicateur euh, bëri lu muy laaj comme liggéey. ñun dafa am ci domaine yoo xam ne foofu lañ spécialisé wu donc dañu jël focus bi daf ko ci domaine yooyu noonu ñëw nag tey partagé ko ak nit yi pour ñu xam ne ah Indaay K-pop mu ngi def lii nii en partenariat ak Union européenne par rapport ak ODD 16 mais ci wàll fànn bii lañ jël ci wàll bii lañ jël ah ñun mun nañ jël beneen wàll beneen fànn ñu xool après naka lañuy dajalee lépp pour que demain ñu ne Sénégal kat pour lu jëm ci wàllu ODD 16 su les questions de gouvernance ak yooyu lii moo nekk liggéey bi nga xam ne organisation de la société civile yi def nañ ko. dañu yaakaar ne corruption xeex ko ci nguur gi la. fa lañ ko war a yemale dañu yaakaar ne corruption bu ñu ko waxee rek ci ñiy jiite la alors que corruption ci chaque jour da koy gis ci fi nga dëkk. taximaan mën nga ko corrompre mën nga corrompre ku nekk te dañ koy dem ba dañu yaakaar ne lu normal la dañuy dem ba dañu yaakaar ne dara nekku ci aaye luñu ko alors que dafa aay te pour ñu nit ñi xam ne dafa aay il faut que xeex bi mu wàcc ba ci suufa suufa suuf ñu bañ a yemale yemaleeti ko ci kaw parce que ñi nekk ci suuf ëllëg ñoom ñooy yëg ci kaw citoyen lambda yi nekk au niveau des mairies euh, des communes demain ñoom ngay suñu ñu nekk ministre ñoom ñooy nekk directeur ñoom ñooy nekk même président donc une fois que xeex bi en bas de l'échelle ci suuf ñëpp comprendre ñëpp xam ne euh, corruption du lu baax day tardel réew corruption day delloo ginnaaw réew parce que en fait c'est pas corruption côté wu xëy na sax mën nañ xool beneen côté bi diine ak yooyu mais côté wu day delloo ginnaaw réew dans le sens de xaalis bu war a dugg ci yoon ñu dévier ko mu jaar ci beneen yoon après duñ ci mën a gis suñu bopp donc xeex bi il faut mu wàcc